barki démb rek lañ lañ lañ lañ gunge woon fële kër euh, Waly Seck. nga dem jaale. Uh-huh. te tamit yaa ngi fi Cambérène di jaale. la lan mën a jàpp ci ñëw bi tey. waaw ñëw bi de euh, comme ni ngeen gisee rek mooy sàkku si tuyaaba euh, ku génn àdduna da ngay ñëw masawu ko jaale ko ngir am tuyaaba ci sunu borom. mu nekk nag loo xamante ni lu ma marqué woon la bi waa Wade génne àdduna boo dafa fekk bitim réew mm-hmm. mais vidéo bi seetaan naa ko plusieurs fois ci mettit ak ci émotion euh, li ñëw naa nag jaale naa waa kër gi yóbbu nañ ma ci biir wan nañ ma machine bi mu daan ñëwee may lancer un appel solennel au président de la république ci benn mbir machine bi Cheikh daan ñëwee daan ci kurkuree am nañu musée bu mag bu nekk wetu grand théâtre ma bëgg état bi jënd machine bi exposé ko foofu parce que lii modèle bu rëy la ci ni Cheikh daan taaba we euh, dëgg la ñi ngi lal waaj a lal ay mesures pour jéem a xool ni ñu dimbalee xale yi waaye dama yaakaar ne c'est dans une large consertation que loolu mun a antu ci réew mi ñu nekk maa ngi koy woo solennellement pour que machine bi état du Sénégal jënd ko à un prix fort ñu jël exposé ko dans le musée xale bu ñëwati xool nekk xale bi ci mettitam la génne woon bàyyi woon machine bi mu doon taaba taabee pour revendiquer li nga xamante ne moo ko métti métti ndaw réew mi mooy coono bi réew mi dëkkee maa ngi leen di sant bu baax. fi jógee nañ Cambérène. ñoo fi paas nga seet si ay malade. waa kër gi kontaan ci lool lool lool lool parce que lu leen bett la. Uh-huh. Euh, lan moo war a nekk sa kàddu gi. waaw euh, xanaa euh, di santaat yàlla ci ñëwaat fii seet siwaat fii ay malade. tey ñu ngi jóge jaale ay mbokki Cheikh Wade émotion bi du jeex ndax gis nañu xale yi yi ñu gaañ fii aussi ma gis aussi borom kër gi réaction de sages bi mu am ni mu waxee moom Momar Koñ wax ko ak ak dal ne toppul kenn ci lenn bàyyi na lépp si loxo sunu boroom kooku wut na ndàmpaay ci yàlla te ndàmpaay ci yàlla rek moo wér damay wax nag ak autorité réew mi ñi nga xam ne ñoo jiite ak ñi bëgg aussi jël réew mi ñaar moo fi nekk benn bi mooy usure du pouvoir ak bonne intention ñi jàkkaarloo ak ñoom di opposition am fraîcheur ci langue politique bi ba pare amaale bonne intention soo croisé ñeenti éléments yi ma wax benn bi day seeyal beneen bi beneen bi nekk cëslaayu beneen bi mooy entre la fraîcheur ak l'usure du pouvoir ak ñaari bonne intention yu daje lépp di nekk di fàttali préambule constitution sénégalaise muy engagement patriotique bi la constitution wax ci préambule préambule soo demee ci Rwanda génocide bi def na un million de morts plus de deux million de déplacés soo demee Guinée Bissau ba léegi jàmm amu fa soo demee Côte d'Ivoire def nañu réconciliation nationale mais taxul ba léegi jàmm am fa Mali gi mi ngi tàkk Congo la même chose moo tax may woo nit ñi gis nañu ne tamit la première guerre mondiale ak la seconde guerre mondiale autour d'une table lañu toogaat pour indiwaat jàmm ñun nag balaa ñuy dem ci fitna bu tar dañu waxtaan bis ne tey maa ngi woo ki nga xamante ne moo jiite réew mi mu engage ay waxtaan yu sincère ak képp koo xamante ne mi ngi yeewoo fii ci réew mi ndax kat bi ma waxtaanee ak Momar Koñ mii nekk kilifa ci kër gi xalaat yi mu génnee ci wàllu indi jàmm ci réew mi mooy ñu tooñ la dal sa kaw yàq sa alal dal ci sa kaw njaboot nga wëlbatiku yow ne jéggale la sama xel dafa am ci lu mu dem léegi li mu wax mooy benn taalif bu ma bindoon ci yonent bi muy dellu si màkk ma ne sa dellu si makk fay na naqar nga mënoon a fayantoo wëlbatiku jéggale ñi la tax ñu sopp la donc nañu dem ci essentiel mooy fàggu jàmm ci jamono ji balaa balaay ñuy dem ci xeex xeex boo xamante ni ci jàmm aussi la ñu war a toogaat pour liggéey ko loolu mooy suma message tey jii